oustaz def waxtaan wa am solo moom lañ leen bëgg a dégtal incha allah ci biir waxtaan wi nag daañ ko tijjee jàngu alxuraan dinañ jël tamit kàddu oustaz bi nga xam ne jël na ko fa waxtaani diine jëlaat tamit mbokk mu euh, a am ma sa jàngale ma sa xam mu di quran ak dëkk ci jàmm loolu incha allah ñu dégta leen balaa ñuy jeexal nag dina ñëw tàggook yéen ndax baax bi ñu duppe woon ya fi mu di suma maamu bopp maamu bopp mu di caam ñing jël na fa parole tamit incha allah ñu tëjee ko xuraan mbokk yi ñu dégtal leen lii ñu daal di ñëw tàggoog yéen aouzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alladina kafaru wa faddu an sabilillahi adalla amalahum walladina amanu wa amilu salihati wa آمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذلك بأن ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموه فصدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء قد تدع القرب أوزارا ذلك ولو يشاء الله لانتظر منهم ولكن ليبلو بعدكم ببعد والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يدل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا وينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنه كرهوا ما أنزل الله فأقبت أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة العاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليه وللكافرين أمثالها فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات tu'aziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila inna allazina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man ñu dellu di sant yàlla bu baax ci mbégte bi nga xam ni yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala bettee nanu ko waane nag loolu la yàlla séq jàmm nga xam ni moom boo nekkee ci waaram mbégte rekk la lay bette jaajëfal bu baax soxna su baax siile nga xam ni kenn ku nekk rekk ci réew mi dégg nga turam ci def lu baax dégg nga turam ci dox doxin bu baax kon yàlla na yàlla fay ko yàlla na ko yàlla dolli jàppale ndaxte damay wax ni ku yàlla narta jàppale du la indi ci jataayu alquraanul karim ndaxte alquraan da di loo xam ni moom moo gënal yàlla ci kaw suuf dégg ci ay kàddoom la di taxawe di wax di nu ñaax ci mbiru daara kon ñoo ngi koy jaajëfal bu baax di wax ni daal tànk yi kontaan nañu bu baax lépp loo xam ne yaa ngi ci yëngu yàlla na ci yàlla jàppale mu sotti te ànd ak jàmm ni ko waxeet jàmm rekk moo jare ñaan bu jàmm amul woon lii du am kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di digg kàddu yi di kontaan bu baax ndaxte oustaz Saalix mii euh, maag moom ñoo bokk sëriñ tabaarakallah euh, way jur waa ngi kër gi yebal ñu fi ngir luñ fi dégg rek bu ñu demee ñu wax ko ko incha allah dinañ ko jottali sa kàddu incha allah dinañ ko sant itam ngir mu ñaanal la ndaxte ñoom bu ñu nekkee ci ruq yi ñoom bokk na ci li ñuy dimbalee jaam yi ngir ñu leen di ñaanal kon yàlla yàlla defal la jàmm yàlla yàlla dolli sa sutura bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa tabaaraka la ñuy kontaan bu baax nag ci sunu wayjur wii li tax ñu koy wax Bab Thiam dañ ñu ko nàmpatal moo tax ñu ko koy wax ndaxte sunu mag di sunu porte parole di Insa Diouf ñu xamee ko ci ba Daaw moo ma boole woon ak moom ci émission boobu nga xam ne tabaarakalla ñoo ngi koy waxtaan ci mbirum séeréer yàlla daan def ma ciy gunge Isa Baye Daaw wutee ma dem wuutu ko foofale waaye yàlla waane nag yàlla nattu woon ma comme que dama yàgg ci àll bi euh, làkku séeréeru saafeen xaw ma te tuuti ba bu ma laajee ay ay bu ma laajee ay ay laaj du ma ko mën a tontu ci séeréeru saafeen ma xam ne nag Oustaz Saalix tabaaraka la moo ma gën a dégg euh, li nga xam ne moo di séeréer saafeen ndaxte nit Euh, booy def te yàlla tax dangay ngay yàlla li mu defal sa moroom ma ne ko nag tabaarakallah kon songool ak baab caam yàlla def nag tabaarakallah euh, seen diggante boobu ba léegi mu rafet ba yàlla def euh, seen diggante ba jur lii kon ñoo ngi ciy kontaan bu baax baab caam yàlla na ko wiir ndax da kon yàlla yàlla fay leen yiw yàlla na yàlla taxawu leen yal na yàlla sàmm leen aar leen bi jaahi mawlaana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee rek ah, kaddu yooyu la ñu wax ne daal ñu jéem leen koo sofal ci seen kaddu yi kon yal yàlla fay leen yépp